saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey daal di fay fekk Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 bile combat la koy teree taxaw du ñàkk bëgg a bëre waaye problème mu kase lay doon jamaykee njiital jam production ma soxla combat ba mu ngay négocier ak ñaari camp yëpp 50 millions pour croiser Balla Gaye 2 waaye staffu Boy nanguwuñu loolu 50 millions du leen tax a sëgg di bëre ak Balla Gaye ñoom la ñu xamle mooy suñu diggante ak Sa Thiès 50 millions la ñu rejeté woon Lac bëre ak moom bëre nañ lu kon bëgg a bëre ak tax ñuy nangu 50 millions waaye njortu naa ne problème am suñu diggante ak jamaykee na dem waxtaan ak noppi bu paree mu ñëw dellu siwaat ci ñun en bu fayee lu logique danañ ko bëreel ndax du yàqoo ci ñun waaye 50 millions xalaatuñ jël ne dañuy bëreeg Balla Gaye 2 moom jamaykee promoteur ba bëgg naa taxawal bi le waaye du yomb bu dee Balla Gaye lu mu gàtt-gàtt dana laaj 150 leneen la dul yomb mooy diggante Gris ak Abdou Diouf revanche par procuration la Gris di jël ci kaw Abdou Diouf bu ñu fàtte ne Abdou Diouf Gris magu Gris 2 noonee la ko xamee ndax ca face à ba xamal na ko Abdou Diouf xamal na ko ne combat bi revanche la te capital pour face yaa daanoon sama mag ca te ci 2020 maa sama mag man mag man Gris danaa toog ci sa deq sama digganteeg yow bu arbitre sifflé foo jaar da dégg Gris wàccal Abdou Diouf kàddu googu moom faaw mu geneen kàddu ga jib te arrangé wut ak lu lamb mooy décision ba CNG yëkkati amatul benn face à bu ñuy mayee ñu koy organiser te régulariser jàkkaarloo Modou Lo Ama may wax ak moom directement muy wax may tontu kenn dugg suñu diggante waaye amul benn yoon bu ma Luc Nicolaï waxee ne face à diggante Modou Lo ak Ama Baldé février la mbir moomee daal je ne pas informé xaw kan ak kan ñoo ko yëg waaye man Biram ñi ngi bokk ma ca man manager Modou Lo yëguma fenn face à bu ñu jàllee ca njiital jamtan production Adama Sané moom nee benn VIP la bëgg taxawal ci saison ren bi bientôt je vais un combat des VIP léegi rek ngeen dégg ne structure Jamton production taxawal na combat bu mag mbër yi ñu fiy woowee ay VIP léegi ngeen dégg ne décroché nañ ci ay combat bu dee Boy Guet Ndar moom décroché na diggante Ahmed Dem 2 ak Bleu 2 bi lee combat ñu ngi ko jàppale 14 mars ca stade Maître Babacar Seye bu nu jàllee ca lit sans frappe dañ fay fekk ñaari ténor yi ñaari ponkal yooyu wërwërloo kenn ka gaar mbuur ak arène nationale ci Jax production 10 millions ya Cheikh Tidiane ñaa la am final daan ko yóbbu 4 millions le janvier ca Iba Mar ca gala ca Faata production mu daan aada booy bawal yóbbu 1 million 350 mille francs journal ba xam le ci ñetti gala yooyu rek ca dajale ci ay millions toll na ci 7 mille francs bu dee biram kunkung ma ñu gën a xam ci caaka fay moom cuqam a gën këmm lay doxee moom caaka fay jël le 1er ca Adrien la daan Pape Maroon yóbbu 600000 le 7 ca Sokone mu daan Cheikh Ahmadou Bamba yóbbu 300000 francs le 8 décembre mu daan général Malika yóbbu 600000 janvier ci Adrien mu daan fils de yóbbu 600000 janvier mu daan Mamadou Cissé bu yóbbu juróomi nag ya ñu toftal ca benn enveloppe francs dimanche bi ñu génn le janvier ca terrain gaal gi mu daanaat fils de yóbbu 1 million francs journal ba xam le classe moom ko daanee arène nationale ba léegi moom kenn gisagu ko jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah